sëñ bi Sarr ñu ngi lay nuyu jëf ci ànd bi ak ñun ci euh, suba gi euh, matinalu Rewmi FM am nañu mbégte mu rëy dalal la ci. madame maa ngi lay fay. alors yow yaay secrétaire général mhm, adjoint bu LD bu ni ma ko waxee. alors ban jàngat nga def euh, ci coppite yi nga xam ni am na démb ginnaaw conseil des bi muy gouvernement bi nga xam ni seyal nañu ko di xaar beneen bu bees. waaw madame damay ñaawlu yaakaar ne président Sall. mënoon na quand même respecter célébration mawlud bi nga xam ne moom moo xew Sénégal la communauté musulmane bu Sénégal dafa nekk di commémorer ganeeg àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ma jàpp ne mënoon na may rek quarante huit balaa muy dugalaat réew mi ci politique am ndax moom politique rek la xam te politique rek lay def ci dissolution gouvernement bi li ma ci jàpp mooy benn président Macky Sall dafa am problème direction moom xamul fan la jëm ak Sénégal dafa mel ni kuy tëjëx tëjaxe loolu moo tax lu mu wax tey bu subaa mu génn ci loolu moo tax doom daanaka safatul benn sénégalais donc président la boo xam ne ni depuis 2012 mu ngi pouvoir waaye ba léegi mu ngi wut méthode naka la ñuy gérer Sénégal ñaari ñagat bi mooy président Macky sal dafa am problème priorité dafa mel ni xamul problème mu Sénégal parce que depuis mu ñëw moom politique rek la nekk. tas parti politique yi tas société civile tas syndicat yi euh, nasaxal démocratie nasaxal état de droit mais priorité Sénégal du loolu priorité Sénégal tey mooy problème yi ndaw yi am priorité Sénégal tey mooy suñu économie dafa nërmeelu te sax balaa Covid bi parce que ñu woon commencé ajustement structurel suñu priorité mooy suufu béykat bi ñu béy ko ak ñoom accord de pêche yi nga xam ne tey euh, pêcheurs yëpp yóbbu na leen presque chômage or bi réew mi am pétrole bi réew mi am gaz bi réew mi am zircon yëpp nga xam ne ni mu ko yoree. moom ak ay xaritam ak njabootam dara leeru ci voilà les priorités du Sénégal. Mhm. te loolu suñu bëggee Sénégal jëm kanam. Mhm. dañ koy réglé. d'accord beneen jàngat bi mooy mhm. président Sall mënut yore réew gis nga projet bu mu commencé du yegg du yegg parce que budget bi du mot du yegg parce que balaa moo am diir ay scandale jub ci. bi ci gën a bi ci gën a siiw mooy xam naa terre bi waaye boo jëloon tey liste nga gëstu programme yoo xam ne yëpp moom la commencé depuis mu nekk fi benn ci yeggul cest à président Macky Sall c'est un politicien politique la jàng politique la mën waaye su ñu bëggee tabax ñu réew il faut que ñu wuti njiitu réew donc man bokk naa ci sénégal yi nga xam ne remaniement bi dama jàpp ne rek euh, ay bouger ay pion la mais du li nga xam ne mooy régler problème mu Sénégal. Mm-hmm. parce que ki ñu jiite du président bu mën a mën a yore réew. d' accord boobu remaniement lan nga jàpp ne moo ko sookee ndax euh, euh, migration clandestine bi nga xam ne dafa jugaat fan yii la wala euh, mbas mi ak li mu am ni njeexital ci koom-koom bi lan dëgg-dëgg nga yaakaar ne moo ko sookee. man mënu xam lan moo ko sookee. Mm-hmm. mais li ma seetlu daal mooy comme ni ko waxee léegi nii moom politicien la. politique la mën a def xëj na am na ci équipe bi ñoo xam ne nii direction bi mu bëgg a jëlaat kon de def politique xalaat ay troisième mandat xëj na ànduñ ci xëj na ñooñu dina soog dina dina tàggoo ak ñoom xëj na aussi opposition bi nga xam ne am na ci ñoom ñoo xam ne nii depuis élection présidentielle seen yéene ak seen initiative yëpp mooy dugg ci gouvernement bi. Mm-hmm. parce que réew mi dafa doy waar dañ nekk ci réew moo xam ne nii dañoom ay ay politiciens professionnels cest à que ñoom li borom xam-xam italien di wax Pareto li muy wax noonu la reproduction des élites politiques bi fi Abdou Diouf nekkee ñoom ñoo fi nekkoon bi fi Abdoulaye Wade nekkee ñoom ñoo fi nekkoon bi fi mag yi nga xam nekkee aussi ñoom ñoo fi bëgg a nekk et am nañu génie boobu extraordinaire euh, am capacité à chaque fois nekk au bon moment au bon endroit pour que ñu yekkal leen pour se servir mm-hmm. mais loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne dafay tardel Sénégal jot nag réew mi ñu ñu ñu ñu ànd ñu boole suñuy doole ñu liggéey ko. Mm-hmm. d'accord alors wax nañu ne tamit euh, gouvernement bi euh, di ñëw euh, jubluwaayu président Macky Sall ci taxawal ko mooy fexe saafara jafe-jafey sénégalais yi lan ngay xaar ci gouvernement bi tudd nga ko léegi ñu yaakaar ne gouvernement bu ubbeeku ci opposition bi lay doon muy élargi. mais président su ma la dara ci réew bi def na ko def mu ngi fi depuis 2012 avant 2012 mu ngi fi woon nekk directeur général nekk ministre nekk. Euh, premier ministre nekk président assemblée nationale euh, depuis 2012 ak 2020 ça fait huit ans mu ngi fi donc euh, télé na quoi. nekkul da nga jàpp ne 2008 2012 ba 2020 defu fi dara. man de jàpp naa ne. Hmm. li am solo ci réew mi muy paj mi hmm. muy njàng mi muy wutal xale yi surtout ndaw yi liggéey ak infrastructure yi nga xam ne dañuy indil dara askan wi jàpp naa ne li waroon def defu ko te tardel na Sénégal yokk na suñu bor ak bitim réew suñuy ressource suñu suuf fexe na ba tubaab yi teg ci seen loxo fi mu ne nii Sénégal am na or waaye or bi kenn xamul li mu dafa lëndëm Sénégal am na phosphate dégg nga waaw waa Matam waa Ndendori mu ngi manifester parce que non seulement gisuñ njëriñu exploitation phosphate bi waaye daf leen di causer ay nuisance environnementale yoo xam ne ni mënatuñ koo supporter dégg nga waa Ndengeleer donc pour man daal euh, c'est un président qui sait pas régler les problèmes boo xam ne ni du moom mooy yóbbu Sénégal fi ñu bëgg mu dem donc pour man président la boo xam ne ni euh, Sénégalais yi citoyens yi progressistes yi les démocrates dañu war a organiser wu euh, ba jëlee ko fii teg réew mi nag ci ay loxo yoo xam ne ni dinañ ko mën a dañ ko mën a jëmee kanam. Mm-hmm. mais man ay remaniement tout ça là pour moi c'est de boo xoolee ba mu toogee ba léegi toute la vie de la nation est rythmée par des événements politiques jàpp tëj exilé créé et à chaque fois il prend des décisions décisions yi da ngay gis na du du luy jëmee du luy jëmee askan wi wala réew mi kanam. Hmm. kon su ma la déggee gouvernement bi euh, ñuy taxawal euh, mënul indi benn coppite ci ni askan wi dundee tey euh, nga ne ci ay jafe-jafe la tegu. man di wax ak yàlla bokk naa ci Sénégalais yi nga xam ne man xaaruma dara ci Macky parce que voilà gis naa ne tëli na daal xaaruma dara ci moom. yaa ngi wax sànq waxi changement de direction mu mel ni yow politique libérale ci boppam nga yaakaar ne du moo mën a génne Sénégal ci jafe-jafe yi mu nekk. ak promesse su Messi xam nga politique libérale moom li ci gën a metti mooy ñi am te duñ bëri dañuy gën di am rek ñi ñàkk te ñoo ëpp dañuy gën di ñàkk rek mais li ci gën a doy waar mooy dafa doon ay politique yoo xam ne nii dañ koy structuré autour d'un homme doomu aadama xam nga doomu aadama rek dafa amul solo mm-hmm. mën naa tële mm-hmm. mën naa feebar euh, mën na. Euh, euh, voilà yéeneem baaxul. Mm-hmm. moo tax su suñu parti suñu culture politique ñun dañuy mettre en avant li ñuy wax le projet collectif di yëkkati ay dynamique yoo xam ne nii képp ku bokk ci réew mi nga am wala nga ñàkk mën nga cee gis sa bopp euh, man dama bokk comme ni ko waxee donc ci français dama bokk génération bi nga xam ne 2000 ñu ñoo àndoon ak les grands leaders historiques. mel ni lay Abdoulaye Bathily mel ni Landing Savané mel ni Amadou Dansokho ñu porter alternance bi parce que dañuy jaayoon ne Sénégal am na benn doomu aadama boo xam ne ni cerveau xaw ma cerveau ni ñu ko waxee ci ci wolof mhm. yuuram moo gën a puissant ci Afrique <laughs> moom ay diplôme ci continent bi ñun ñëpp ñu jox ko réew mi waaye ñëpp gis nañ li mu doon réew mi yorin bi mu yorewal réew mi moo ñu indil ci problème yi nekk nii problème bi ñu nekk mooy suñu principal problème mooy tey ji nga xam ne ñoo wër makki Sall ngànk réew mi xeex bi sénégalais yi xeex mu am ci ñàkk bakkan am ci ñoo xam ne ni seen seen seen seen dafa tas seen njaboot dafa tas dañ cee ñàkk liggéey sacrifice yooyu yëpp nga xam ne moom lañ consentir pendant presque quarante ans pour mën fee jël régime parti socialiste te ñu ne gouvernement bi xamuñu loolu. Mm. waaw loolu xew waaw loolu xew ak Abdoulaye Wade yëpp teewul 2012 yéen gëmaat ngeen politique libérale ndax euh, LD dafa àndoon ak président Macky Sall euh, laata euh, ngeen di xaajaloo ba yéen ngeen dem ak seen wàll def LD debout ña ca des tokke weti président Macky Sall kon tey est-ce que tamit mën ngaa taxaw di remettre en cause loolu di politique libérale gannaaw gëm ngeen ko ñaari yoon. waaw boo seetloo LD. taxawaayam ci trajectoire histoire histoire réew mi dafa wóor. Hmm. dafa dafa leer à chaque fois que Sénégal soxla woon LD taxaw LD dafa taxaw depuis PAI yi année soixante dix ba nga xam ne Senghor dafa jël décision nasaxal démocratie jël réew mi def ko grenier xam nga grenier saqu France. Hmm. LD dafa taxaw ah woote combat bi yore ko di xeex. di xeex ba mille bi nga xam ne Abdou Diouf daf fi war a jógee LD dafa taxaw ak pôle de gauche ah euh, organiser population bi organiser lutte bi pour que ñu mën a am première alternance mais également Abdoulaye Wade comme ni ñu ko waxee léegi bi ñu ko installé. Mhm. ay ay ay weer rek la ci teg mu commencé wax sénégalais yépp ne doomam moo fi gën a rafet moo fi daq a jàng diplôme yi am ay diplôme yu raar la boo moo war a doon. ngeen ñu génn ci. biñ ci génnee aussi taxaw organiser waat opposition bi organiser waat force démocratique yi taxawal assise nationale taxawal Benno Sénégal Benno Siggil Sénégal jëlee ko fi malheureusement mu daalu ci loxo ku mel ni ku mel ni ku mel ni Macky Sall. mais tout le monde sait aujourd'hui que Macky euh, moom politique moo ko yitteel moom wut alal moom ak njabootam ak ñoñam moo ko yitteel mais du problème Sénégal. moo ko yitteel. d'accord léegi léegi ko yitteeloon mm-hmm. ak ak ak ak ressources bu réew mi am yëpp tey sunu ndaw yi duñ nekk ci désespoir de cause boo xam ne ni am ñu benn solution lu dul mbëkk mi. d'accord léegi dafa doy waar. waaw léegi ngir man su ma nekkoon Sénégal ma yore réew mi juróom-ñetti at. Mm-hmm. samay ndaw di tab ci géej bi dee ci désert bi ñu leen transformé esclave di laaj ay rançon man dinaa démissionné. d'accord jot na tey Macky Sall jàkkaarloo ak seetu xool boppam xool ñi mu àndal. xool doxalin bi mu yore réew mi mais mu bàyyi bala mu jël direction bi nga xam ne moom la réew mi soxla. d'accord léegi bu ah. weesoo libéraux yi yow ci yan loxo nga gis réew mi ngir mu jëm kanam très rapidement. xam nga Sénégal. Hmm. depuis mille neuf cent soixante quatre personnes ñoo jiite Sénégal. Hmm. kon njiit bi sax du problème bi. waaw parce que dans chaque maison mën nga fa génne un président de la République c'est pas ça le problème. Hmm. le problème mooy le projet collectif ñun en tant que sénégalais. Mhm. lan la ñu bëgg def ci suñu réew. d'accord loolu lañ ko defoon ci assises nationale yi. Mhm. Macky Sall li ko sonal mooy. Euh, voilà dafa ñëw sukkandiku ci assises nationales bu jël pouvoir bi. Mhm. après war assises nationales yi. mais bu ñu d'accord ci lan lañu bëgg def naka lañ koy defee su boobaa ki ko def yow mii mën nga ko keneen mën na ko ce pays la quand même a des ressources. Euh, de de dimension exceptionnelle. Mhm. partout ci àdduna bi foo demee nga fekk fa Sénégal yi on a quand de grands cadres. Mhm. des hommes propres euh, des hommes des hommes bien formés des hommes euh, yoo xam ne dañuy respecter éthique. Mhm. am morale di respecter loi donc amuñu problème boobu. vraiment man dama bokk ñi nga xam ne gëmuñu Messi. le problème sénégalais du am Messi mooy ñëw régler ko ce sont les sénégalais ñoom ñooy toog xool naka la ñuy seen seen problème donc pour ñun. l'affaire de du développement l'affaire de la gestion d'un pays. Mhm. c'est une affaire d'abord de projet collectif. jërëjëf pour construire un futur meilleur. jërëjëf Pape Sarr euh, secrétaire général euh, adjoint bu LD Debout ñu ngi lay gërëm amoon nañu lool mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. madame maa ngi leen di gërëm bu baax.